mooy comme man tiset bi ma sol nii wan ni man HLM la dëkk ni mooy logique bi nit fu nek fi nga dëkk da nga ko war sargal ndax amul leneen 3 points rek la amul leneen benn match bi moo des ci aduna bi mu jeex amul beneen match japp na autorités yi bu buñ ci jàppul sax mais dirigeant ñi ngi si jàpp waaw parce que man samay dirigeant laa am man ñoom laa gëm ndax autorité bu final rek bu final lay ñëw te loolu mooy débaaram autorité moom final la mën a ñëw ndax final nga ko gën a soxla mais man mention spéciale sama dirigeant président beeg ba ci suuf ñëpp supporter yi yeeg rawatina nag suñuy jour waaw parce que suñuy jour moom jàmbaar la ñu début à la fin ñoom ñëpp ngi ñëw di jàpp si entraînement bi sérieusement di gagné sérieusement autorité yi nag xam naa nag ak fan yi néew balaa fin incha allah dinañ ñëw ndax ñu ñoom ñoo bokk ñu suñu papa lañ ñu suñu rakk lañ ñu suñu morom lañ ñu suñu mag lañ ñu ñaan yàlla dëkk bi tamit gën a am jàmm waaw man de ku pare man man moom pare naa depuis début championnat bi waaw man moom pare naa depuis le début waaw te xaajagu ma sax bay jeexal pare naa waaw maa équipe moom ba Ligue 1 incha allah yaa jëf góor amal jàmm yaa ngeen jëf sama. li ñu koy waajalee rek mooy ñun ñëpp ñu bokk nday bokk baay nag li l'union fait la force boole xool yëpp xam ni HLM dañu soxla monté te bu xool yëpp boolooyee ci kàttanu borom bi dañu yéeg. soxla nañ ko parce que yéeg rek lañu bëgg kenn du dem ci xare naan damay jël ginnaaw comme ñoo jiitu ci poule bi dañuy ñaan yàlla décroché kay yéeg ca kaw incha allah. ah mobilisation bi kay tout un chacun ku ci nekk am nga ci sa part de responsabilité damay tàllal loxo HLM 1 ba si cité des eaux ba montagne. cité douane angle Mousse xam ne ASC HLM association sportive et culturelle dafa englobé HLM yëpp lii melting pot la ñëpp ci la ñu bokk kon ku ci nekk na ci def sa part de responsabilité nañ ñëw jënd mayo nañu teg kaar feesal dem mobiliser ànd ak équipe bi supporter ko ñu jël ndam li andi ko fii. bi ci centre bala siège ba ku ñëw foofu rek di nga fa fekk équipe bi nag foog ñu dooleel leen ñii ñooy HLM xale yi dañuy creuser ciel et dirigeants yi luñu am def nañ ko ci pour HLM jëm ca kanam football moy fédéré football moy bolé football mo ñu mëna a may lu kawe suñu njoot football moy tax ñu bolé suñu lépp kon nañ leen ñëw andando gunge équipe bi pour une montée éclatante le soir du 17 juillet inshallah. merci. waaw mais bon mom lay wax rek parce que man pour man mobilisation mom mo yor équipe te affaire bi nekkatul euh, affaire HLM kese mais dafa war affaire Dakar parce que bo xolé Kolda. moom dafa bëgg uti yéeg ñu ñu bëgg uti yéeg ñoom ñu ngi nekk euh, fële Kolda ñu ñu nekk Dakar moo tax ma ne nekkatul rek affaire wu euh, HLM. te dafa amoon euh, suñu beneen voisin bu nekkoon à côté nekkoon ci Ligue Pro bi wàcc mooy ku mel ni ñaartal dama koy tudd parce que tey jii dañuy ñaan yàlla équipe bu dakaar yi gën a yokku mais tey jii bu ñu demee ba ñaartal yi wàcc lu lu ñu gën a gën a luñu mais kon ñun tamit ñu toll ci phase boo xam ne war nañu sauver honneur boobu. moy jéem def tout pour am nekkat euh, ligue euh, ligue pro bi mooy euh, deuxième division bi parce que bo xolé HLM du équipe bu ndaw te équipe la bo xamné peut-être ku ñu ràññale ci compétition yi mag yépp te war nañu mëna a dellu soit mais dañuy ñaan population bi rek ñu xamné tay ji war nañu mëna jappalé équipe bi dimanche moy le 17 bi ñu xamné dara dara ñu fa nak lu dem outil ndam mais ndam nak boy dem bo bëggé Yalla may la ko wax bi ñu xamné tamit lepp HLM la.

mais sama xel mosul denc HLM ni may taxawoo yeneen équipe yi ci àll bi te ma dëkk fii dama ci def sama kentalaay kattan sama doole ak sama xel ak sama xam-xam te amuñu leneen lu dul HLM même buñ fi nekkul tout le temps war nañu mën di participer ci équipe bi ak ci situation bu mu ñu mën a mën a mën a fekk yooyu quoi mais di leen remercier bu baax HLM euh, vision mooy euh, su ma juumul télévision bi quoi voilà.

Euh, donc euh, yalla na ko yàlla def ba équipe bi dem deuxième division incha rabbi pare waaw parce que mo gën a wóor. Mhm. Euh, mun nañ yaakaar ne Don Bosco mun na am ndam et comme ñun victoire rek mo ñuy yóbbu ñu ngi def ay pexé di entraîner nek ci lolu pour incha rabbi rabi dimanche bu 90 yi jeexee heure bi Euh, que nit ñi mun a taal ay pétard fii si HLM si kattanu yàlla. mais waaw liggéey bi yemb na fi mu ne nii dañuy xaar bés bi mu jot rek ñu ñaan yàlla egg seeg jàmm dugg seek bisimilah rahmaani rahim et puis génn ak alhamdulilah rabil alamin xale yaa ngi entraîné bu baax. wax dëgg yàlla ñoom sax ñu ko gën a bëgg. et loolu moo ñu gën a jox sax euh, cawarte pour ñu continuer li ñuy def. donc ñoom ñëpp a ngi liggéey euh, dirigeants yi ñoom tamit tooguñu benn yoon. Euh, écho yi ñu am moy dëkk bi ñëpp a ngi yëngu pour bëss bobu dal doon bëssu feet inshallah rek. Euh, mom ñom ñu ngi leen di ñaan ñom ñëpp ñu ñëw et bu ñu ñëwé nak tamit ñu baña doon ay 74 rek quoi 74 moy nga tok xalé bi raté occasion nga yuuxu woo euh, nañu doon ay supporter supporter moy xalé bi bu raté occasion nga tàcc ko ne ko li ko def baax na bu defee lu baax nga yuuxu ba mu yëg ne li mu def baax na donc si foofu lañ leen di xaaree ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ñëw taxawu xale yi pousse leen si benn fan bu ñu gañee match bi ñu déjee leen victoire bi ñoom Merci beaucoup.